Euh, réew yi nga xamante ne ni ci ay ci membre fondateur yi la ñu bokk yëkkati fa euh, ay kàddu yu am solo ñu mën cee ràññee euh, lu mel ni position loo xam ne mën naa jàpp ne guléet la mu jël position ci loo xamante ne ni xew na ci diggante Israël ak Palestine mu doon en tout cas lu lu lu lu bees ñu ma ma jéem a revenir un peu rek ci yenn phrase yoo xam ne. Mm-hmm. génn na ci discours bu président Diomaye mi ngi wax ne il est important que l'OCI euh, et les États membres renforcent par ailleurs la diffusion des valeurs authentiques de l'islam, religion qui prône la modération, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Mi ngi wax aussi que en tant que président nouvellement élu du Sénégal, membre fondateur de l'OCI, je tiens à vous assurer de l'ancrage continu de mon pays au sein de notre organisation dans un esprit de solidarité et de fraternité. wax na itam dans son discours le Sénégal est particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza sous le regard indifférent de la communauté internationale face à l'inertie du Conseil de, de sécurité et au mépris des règles humanitaires euh, les plus élémentaires euh, je renouvelle euh, le soutien indéfectible du Sénégal aux revendications légitimes de nos frères et sœurs palestiniens pour un État viable et souverain avec Jérusalem et comme capital euh, conformément résolution résolutions pertinentes des nations mën naa jàpp ne guleen la ñu euh, gis président wu Sénégal wala bokk ci président yu bëri ci euh, àdduna bi ñoo xam ne am nañu une position claire par rapport ak la nga xam ne nii euh, moom moo xew diggante Israël ak Palestine Thioune ban commentaire nga mën a def ci kàddu yooyu nga xam ne le président de la république yëkkati na ko. waaw xam nga euh, conflit euh, Israël Palestine yàgg na. Mhm. donc euh, yàgg na yàgg boo xamante ni dañuy naan kañ lay jeex. Mhm. lay jeex alors mu nekk conflit boo xamante ni. Euh, des fois euh, dafay jafe comprendre parce que dafay am aspect religieux. Mm mu am aspect politique donc te mooy dem des fois acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ko provoqué wala ñoom ñi koy def. Mhm. da ngay xam doo xam euh, noo koy qualifié. alors li ñu ci mën a jàpp rek mooy ay nit ñu bëri ñu ngi fay dee euh, déwin boo xamante ni bu ñaaw la te dara du ko gën a euh, mhm. ñaaw alors léegi nag dafa am lu ñu tuddee. Euh, une communauté internationale boo xamante ni euh, des fois aussi da ngay am problème kan mooy communauté internationale ak lan mooy kan mooy ñëw ba nga jàpp ne réew bi réew yi ñoo constituer li ñuy tuddee la communauté internationale. Mhm. parce que bu ñu waxee ne si le silence complice euh, de la société internationale face ak li xew la ci Gaza. contre les populations palestiniennes. Mhm. donc da naan d'abord. Euh, réewum France mooy d'abord ñoom danoo taxaw du seetaan euh, Amérique également taxaw du seetaan Allemagne taxaw du seetaan euh, Grande-Bretagne pour ne pas dire Angleterre ñoom ñëpp ku nekk taxaw du seetaan alors en réalité dañ ne lorsque nit ki bu ñu koy opprimer mhm. ki décide seetaan moom complice la parce que bu ko bu ci àndul day taxaw carrément ànduma ci ba mhm. pare dimbale ki nga xamante ni moom lañ tooñ alors problème bi nag yàgg na léegi nag lii différence position état ak askan. Mhm. mooy xam nga buñ ko commencé def su ma juumulee koor bi passé euh, Israël attaqué woon na ay palestiniens ci o mosquée. Mhm. Euh, ci jumaa bu mag. jumaa jooju fekk la ñuy naafe ñu euh, fekk leen fa loolu def nañ ko pendant lu yàgg ci weeru koor bi mhm. alors ay sénégalais ay mouvement en tout cas association ñoo xamante ni wàllum lislaam ñoo taxawoon génn ne il faut que li xew Gaza euh, ñi leen di noot ay ñi nga xamante ni ay jullit la ñi leen di noot. Mhm. il faut que ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy def di Israël donc il faut ñu arrêter parce que armée bi quand euh, lu mu fay def jéggi na dayoo. alors jamono jooju je me rappelle bien discours Macky Sall en tant que mhm. président euh, dafa woote woon ñaari ñaari kuréel yi. waa mhm. Palestine. ak waa est à waa à waa pour ñu def ce qu'on appelle la désescalade des désescalade. maanaam mhm. ñu bàyyi li nga xamante ne moo fa am alors kuy wax loolu xam nga jëlul position mais dafay woote yéen ñaar da ngeen bàyyi. Mhm. mais bu fekkente ne ñaar nit danoo jotee am na koo xamante ni moo tooñ ku tooñ ngay woo sëriñ bi bàyyi li ngay def. Mhm. alors nga nga afficher une une position très claire maintenant euh, ici l'OCI mooy benn kuréel boo xamante ni dafay dajale euh, les présidents euh, yi nga xam ne ñoo bokk ci pays ñoo bokk ñu am ñu bokk muy liine. diine muy l'islam mhm. Mhm. ñooñu toll ci 57 donc ñooñu ñoo taxaw euh, pour def li ñuy tuddee benn résolution comme ni ko ONU di defee mhm. alors résolution bi certainement pour apporter leur soutien euh, ou bien le soutien des peuples musulmans africains euh, ak euh, aux populations palestiniennes yi nga xamante ni depuis plus de sept mois ñu ngi leen di noot di rey seeni doom di bombarder ñoo xamante ni defuñu dara euh, di fekk ay nit ci hôpitaux ñu leen di bombarder li leen di rey tey nga leen di compter ay milliers ñenn ñuy otage lañu ñii ñu rey leen conditions yoo xamante ni da ngay booy seetaan vidéo yi sax da ngay tiit mm-hmm. et pense également c'est important parce que euh, même bu ñu nekkulee aspect euh, politique maanaam mm-hmm. tey lu ñu toog foofu noonu di dajaloo ñoom il sont d'abord musulmans avant d'être président donc mm-hmm. li xam li xew ci askan wi aussi euh, dafay jaadu ñu afficher seen position mu doon loo xamante lu leer la parce que yàlla daf ne yéen ñi nekk ci kaw suuf ku nekk si yéen da nga am responsabilité dara bu jotee ku nekk li nga liy sa wareef ak sa sa niveau euh, na nga ko taxaw même bu fekkente ni yow mënuloo si dara. na nga jéem nga naxarlu ko ak manière bi nga xamante ni jàpp nga ni moom lañ lay déggee. alors euh, tey jii euh, bëri na acte yoo xam ne le président Diomaye jot na ko tegagum par exemple ci ay voyage ba léegi gën a gudd dem. Euh, ci euh, fu mel ni Europe wala États-Unis wala feneen ak feneen loolu bokk na ci euh, loo xamante ne peut-être nit ñi ñu ngi posé wu ay question mais lan moo tax président génn ko dem ci yenn réew yi nekk bitim réew visite yi mu jot a dem na fu mel ni Mauritanie dem ci fu mel ni Guinée-Bissau dem fu mel ni Gambie tey jii discours bi ñëw yokkuwaat ci act yoo xam ne la président Bassirou Diomaye teg na ko. Euh, naka la ñu mën a analyser tey démarche bi nga xam ne nii la président Bassirou jomaa Faye mi ngi ci nekk ak euh, pas yi nga xam ne ni mi ngi koy tegagum et puis cette décision euh, wala kàddu bu courageuse laa ko mën a tuddee bi nga xam ne nii tey yëkkati na ko parce que gis nañu ay njiitu réew yu bëri ci biir àdduna yoo xam ne ba léegi nii sañu ñoo taxaw wax ci loolay xew ci diggante Israël ak Palestine ban effet la loolu la loolu nar a def à l'international waa xam nga benn il faut ñu benn li nga wax am na solo. Mm-hmm. xam nga boo bëggee comprendre la position euh, des ñi ñi dem ci OCI bi. Mm-hmm. ak euh, Bassirou Diomaye Faye da ngay jéem a comprendre la position de Erdogan sur le conflit par rapport au conflit. israélien euh, Erdogan en tant que président dafa doon fierté d'abord communauté internationale musulmane bi mais aussi mu nekk euh, fierté ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci Moyen-Orient parce que moom mooy président boo xamante ni ci Moyen-Orient mhm. dañuy euh, parti Moyen-Orient parce que bokk moom ci Europe la bokk mais bu ñu attaqué benn réew boo xamante ni ay jullit lañ moom day taxaw clairement ne lii lii laa ànd ànduma ci lii donc mhm. kooku du kuy nëbb li nga xamante ne fa la féetee parce que gëm na ne moom la te jullit bi frère am même bu nekkee Afrique. Mhm. donc li nga xamante ni également mooy le discours du président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. donc ça mën nga ko natt également comparé ko ak discours sénégalais bi parce que. Euh, yàgg naa nee naa euh, li nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yu doon ay jullit. Mhm. ñoom euh, ci lu ñu mën ci ay ñaan ci ay ñaawlu ci ay nax.